njiitu réew mi le président de la république Bassirou Diomaye Faye euh, bëgg na en tout cas député yi daal di ko voté pour ñu mën ko ñu mën ko fi jëlee daal di ko supprimer euh, mu di nag décision boo xam ne décision bu am solo mu mel ni rek tey jii parce que euh, ñu bëri fii ci réew mi ci bitim réew nañ bàyyi xel ci li nga xamante ne moom moo war a xew fii ci assemblée nationale te mën a déteindre ci li nga xamante ne sax mooy doon avenir assemblée nationale ndax ku ne xam na ne ñi fa rëy ci nguur gi ñu ngi mébét également dissoudre li nga xamante ne moom moo di pencum ndaw réew mi assemblée nationale la quatorzième législature mi ñu ñëwaat ci li nga xamante ne moom mooy la petite histoire ci naka la ñu créé li nga xamante ne moom mooy la HCCT la ko au conseil des collectivités territoriales mais naka lañ créé également li nga xamante ne moom mooy le conseil économique social et environnemental CESE ñu tàmbale ko ci li nga xamante ne moom mooy <clears throat> le conseil économique social et environnemental le conseil économique social et environnemental nag nekk euh, bànqaas boo xamante ne daanaka euh, moom moo gën a yàgg li nga xamante ne en tout cas ci euh, création wala ancienneté li nga xamante ne moom mooy parce que ñu ngi ko créé woon en 1900 1971 ci lañ créé li nga xamante ne moom mooy le conseil économique social et environnemental bi ñu ko créé nag euh, ba noppi euh, li ñu def rek mooy euh, daal di ko daal di ko institutionnalisé constitutionnalisé j'allais dire pour dugal ko ci li nga xamante ne moom mooy la constitution à partir de 2000 de 1963 de 1963 nag ba léegi le conseil économique social et environnemental lu mu ngi fi. <coughs> di am ay budget yu takku ñu ñëwaat ci budget bi nga xamante ne rek foté foté nañ ko <coughs> ren muy de budget 2024 excusez-moi di budget boo xamante ne ça tourne autour de 7 milliards 500 euh, millions budget bi nga xamante ne également moom lañ ko alloué le conseil le o conseil des collectivités territoriales mu ngi toll ci 7 milliards 800 euh, millions mais bu ñu desee ci li nga xamante moom mooy conseil économique social et environnemental Euh, wax naa ko sànq côté ancienneté moom moo gën a yàgg li nga xamante ne moom mooy le haut conseil des collectivité territoriales am ay émission yoo xam ne se des missions euh, yu am solo ñi ko formé également nekk ci li nga xamante ne moom mooy le conseil septembre 2012 ak la loi organique numéro 2012 tiré 28 du 28 décembre 2012 fixant son organisation son fonctionnement di étendre également li nga xamante moom mooy ay domaine de compétence am euh, liy jar a également ci li nga xamante ni moom mooy le conseil économique social et environnemental parce que ci laa bëgg ñu yem pour au conseil obligatoirement euh, di président de la république Bassirou Diomaye Faye képp koo xamante ne président la fii ci réew mi mën nga di ko saisir di ko laaj xalaatam ci yenn décision yi nga xam ne dafa ñeen ak i wala sax yoo xamante ne am nañ ay caractère économique social euh, ak environnemental donc mu di lu am solo ñu fi jaar également ci ay président ñoo xamante ni jiite nañ le conseil économique social et environnemental de 1963 parce que sànq wax nañ ko 1963 lañ ko constitutionnalisé dugal ko ci constitution constitution bi euh, takku nañ lool lu toll tey jii nii ci presque douze présidents euh, jiite nañ kuréel googu di conseil économique social et environnemental ñu mun ci nemmeeku ki nga xamante ne moom moo njëkk a ji moom moo njëkk a jiite le conseil économique social et environnemental gannaaw bi ñu ko constitutionnalisé en 2000 euh, 1963 donc de 1964 à 1900. 68 euh, euh, Boissier euh, Palone moom moo njëkk a jiite li nga xamante ne moom mooy le conseil économique social et environnemental de 1968 à 1972 Maguette Lo moom moo jiite le conseil économique social et environnemental de 1972 à 1984 Abdou Karim Gueye moom moo jiite le conseil économique social et environnemental de 1984 à 1993 Ibrahima Sagna moom moo jiite le conseil économique social et environnemental Famara Ibrahima Sagna boobu bu ñu ko waxee xel yi mën a dem ci li nga xamante ne moom mooy dialogue national bi nga xamante ne président de la république ou l' ancien président de la république Macky Sall euh, woon na ko à la date donc du 28 mai mu joué woon ci rôle bu am solo. moom Famara Ibrahima Sagna mais ba tey bu ñu continuer ci li nga xamante ne euh, moom mooy euh, président yi jiite li nga xamante ne moom mooy le conseil économique social et environnemental euh, ku ci mel ni également Mbaye Jacques Diop jiite na ko de 2003 à 2008 parce que ku ne xam na ne nag mandat bi le mandat au conseil économie social et environnemental cinq ans la bu ñu continuer ba léegi également Ousmane Masseck Ndiaye jiite na ko. Euh, de 2008 à 2003 moom moo nekkoon le président du conseil économique social et environnemental de 2013 à 2019 Aminata Tall moom moo nekkoon la présidente du conseil économique social et environnemental et de 2019 à 2020 Aminata Touré moom moo jiite 16 conseil économique social et environnemental Aminata Touré bi nga xamante ne nommé nañ ko defe naa barki démb rek euh, comme au conseil. Euh, représentant donc pour moi au représentant du président de la République moom nekkoon na fi également député à l'Assemblée nationale moo Aminata Touré nekkoon na ministre de la justice nekkoon également euh, premier ministre sous l'ère Macky Sall moom tamit euh, comme ni ma ko waxee de 2019 à 2020 un an rek la jot a jiite li nga xamante ne moom mooy euh, le conseil économique social et environnemental euh, bi mu fa jógee également Idrissa Seck nekkoon allié bu président bu l'ancien président de la République Macky Sall dans le cadre du Mbour ak moom tamit euh, jotoon na jiite 16 jiite ko deux ans de 2000 ou trois ans même de 2000 à 2023 après Idrissa Seck nag ko wuutu foofu euh, ba liggéey ni moom mooy euh, diriger li nga xamante ne moom mooy conseil économique social et environnemental mooy Abdoulaye Daouda Diallo donc depuis 2023 Abdoulaye Daouda Diallo moom moo nekk à la tête donc du conseil économique sociale et environnementale mu nekk donc douze présidents yoo xamante ne jiite nañ euh, li nga xamante ne moom mooy le conseil économique social et environnemental de 1964 à 2024 donc mu nekk kuréel goo xam ne président de république mën na di ko saisir euh, di di ci di ko laaj xalaatam ci ay euh, proposition yoo xamante ne c'est à caractère économique parce que ñoom ci loolu la ñuy yëngu ak caractère également sociale ñu ñëw ci li nga xamante ne moom mooy le haut conseil des collectivités territoriales le haut conseil des collectivités territoriales nag yàggul lool comme ni nga xamante ne noonu le conseil économique social et environnemental yi yàggee dans le temps euh, parce que ñu ngi ko créé à travers donc euh, le référendum du 20 mars 2016 ginnaaw bi nga xamante ne ñu ngi doon procéder en tout cas l'ancien président de la République à de la constitution tout simplement euh, ci lañ créé nga xamante ne moom mooy le HCCT donc mu di bànqaas boo xam ne lu toll ci cent cinquante membre ñoom ñoo fay siégé ànd ak seen président te jamono ji Aminata Mbengue ñaay jiite li nga xamante ne moom mooy la HCCT mu nekk kuréel goo xamante ne ca jamono ba nga xamante ne lañ doon institué euh, li nga xamante ne moom mooy l'acte trois de la décentralisation euh, lañ ko daal di euh, mettre sur pied ngir mu jàppale li nga xamante ne moom mooy l'exécutif ou en tout cas l'état central ci li nga xamante moom mooy les politiques yi nga xamante ne ñu ngi koy amal au niveau donc de euh, des donc euh, territoriales mu di organe boo xam ne si une assemblée consultative donc euh, président de la république mën na également di ko constituer mais euh, en tout cas ci yenn fànn yi mais mu am liggéey boo xam ne da koy def également au niveau donc des collectivités territoriales di saytu di joxe. Euh, li nga xamante ne moom mooy xalaatam waaye également di formuler ay rapport yoo xam ne da koy teg sur la table donc du président donc de la république donc euh, l'un dans l'autre que ça soit le conseil économique social et environnemental que ça soit euh, le conseil économique social comment le conseil social et environnemental simplement le haut conseil des collectivités territoriales ay kuréel la yoo xam ne wala ay bànqaas yoo xam ne mettre nañ ko sur pied mu nekk loo xamante ne l'un dans l'autre boo boolee li nga xamante ne Euh, loolu la ñuy jël comme budget boo boolee kenn ki en tout cas le conseil des collectivités territoriales budget mu ngi tollu ci 7 milliards 800 le conseil économique social et environnemental budget mu toll ci 7 milliards 500 boo boolee ñaari budget yi nag pendant cinq ans donc de mandature dafay tourner autour de 77 euh, milliards donc 77 milliards yooyu moom la nguur gi fi nekk bëgg a yaxanal di ko gagné mu nekk vraiment euh, lu am solo en terme donc de rationalisation des dépenses te président Bassirou Diomaye Faye mi soumettre le projet de loi ñeel la suppression du conseil économique social et environnemental et la suppression euh, du haut conseil des collectivités territoriales li ko tax a jóg mooy daal di rationaliser li nga xamante ne moom mooy les dépenses euh, de l'État donc mu di lu am solo donc euh, décision boo xam ne ñu bëri mën nañ ko sel mais de l' autre côté on voit des observateurs rawatina nag ñi fari ci ku gi ñu jàpp na rek euh, naam mën nañ ci rationaliser des dépense ba gagné ci lu toll ci dix 77 milliards ci 5 ans yi euh, mais ñoom la ñu gis mooy que c' une décision politique euh, parce que kuy xool également au conseil des collectivités territoriales ni mu doon doxee le conseil économique social et environnemental la ca ëpp ci li ñeen ñi jàpp mooy dañ ko dañ fa doon quasi ay clientèle politique parce que jamono ji ñuy wax boo jëlee lu ci mel ni HCCT au conseil des collectivités territoriales di fa siège ci cent cinquante membres yi daanaka soixante dix yi euh, président de la république moo am prérogative euh, daal di leen euh, choisir quatre vingt yi rek lañ doon élire nest pas à travers donc Euh, un suffrage indirect donc euh, mu nekk euh, loo xamante ne ça ne laissait pas quand même de marbre certains observateurs mais surtout ñu fare woon ci kuje gi ñu jàpp ne dañ ko doon def rek justement pour caser ay clientèle politique waaye justement pour mën a également dilapider des ressources donc alal bu bu solo te au bout du compte euh, sénégalais yu ci bëri dañ doon interroger di poser ay questions ci utilité ak euh, surtout bilan yi nga xamante ne le HCCT comme le CESE mënoon nañ ko di présenter chaque année te ñu gis loo xamante ne def nañ ko en terme donc de bilan wala en terme donc de réalisation donc euh, mesdames et messieurs c' était justement pour ñu mën a camper le décor ñëw ci lan mooy HCCT lan mooy kañ lañ leen créer budget bi ñaata la en tout cas l'un dans l' donc on voit que boo boolee ñaari budget yi rek donc ça tourne autour de quinze milliards donc euh, bu ñu defee le cumul pour les cinq ans en tout cas pour un mandat donc ça tourne autour donc de soixante dix sept milliards donc mu di alal bu bu takku bu am solo tey jii nag loolu moo waral le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal di soumettre le projet de loi le bureau de l'Assemblée nationale daal di convoquer une séance plénière pour waxtaan ci jamono jii ñuy wax ak yéen nag député yu bëri euh, ñëwaguñu naam am nañu jot a ñëw Guy Marius Sagna bokk ci groupe parlementaire Yewwi Askan yi bokk na ci député yi. Euh, njëkk a ñëw fii ci assemblée nationale voilà on voit également euh, Mame Diarra Fam moom tamit mu ngi noonu gis nga ko mu ngi noonu di saafonte ki nga xamante ne moom mooy euh, l'honorable député Guy Marius Sagna Sanu Diop à côté moom tamit bokk ci député non inscrit actuellement parce que mu ngi faroon ci la plateforme taxawu Sénégal te ku ne xam na ne au début donc de cette quatorzième législature la plateforme taxawu Sénégal mu ngi bokkoon ci groupe parlementaire Yewwi Askan Wi laata ñuy am jafe-jafe ak euh, Pastef daal di génn ci groupe parlementaire boobu te euh, dans une mandature su fekkee nekkoon nga ci groupe parlementaire génn ci groupe parlementaire boobu amoo possibilité dem dugg ci beneen groupe parlementaire mais li nga mën a def rek mooy euh, daal di bokk ci député yu fare ci non inscrits loolu moo fi xew donc sa noo ngi noonu Thierno Alassane Sall également on le voit temps yi nag mu ngi illustré wu comme ni mu ko daan defee ci li nga xamante ne moom mooy les réseaux sociaux daal di euh, dénoncer li nga xamante ne moom la jàppee scandale au niveau donc de l'ONAS bind ci def ci ay révélation yu am solo yoo xam ne daanaka c'est des révélations yu muyee ka nekkoon 2019 euh, le directeur général de l'office national de l'assainissement du Sénégal na Gagny Sakho ci li nga xamante noonu la ñuy octroyer les marchés euh, publics moom Thierno Alassane Sall également ci la petite histoire moom moo fi dugaloon recours pour dénoncer la double nationalité de Karim Maïsawa de gannaaw bi nga xamante ne on était à un doigt ou à deux doigts tout simplement euh, de l'élection présidentielle de 2024 ba tax conseil constitutionnel daal di génne ki nga xamante ne moom mooy euh, Karim Maïsawa de ca la nga xamante ne moom moo doon euh, euh, la course vers donc la magistrature suprême donc mi ngi noonu assemblée daal dix heures lañ joxoon député yi rendez-vous pour ñu ñëw daal di teew fii nii mën a euh, tàmbali liggéey bi voilà kooku di dugg si gis nañ ko moom mooy euh, l'honorable député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly tamit temps yi ñu gis ko mu illustré wu lool ci li nga xamante ne moom mooy euh, les médias affiché wu wax ci li nga xamante ne moom la jàpp ne moom moo war a nekk mooy la dissolution de l'Assemblée nationale te ku ne xam ne ne également dissolution de l'Assemblée nationale moo njëkk nekk en mais di alimenter ay débat euh, ci euh, réseaux sociaux yi à travers les médias di def créer la chronique parce que ku ne xam na ne assemblée bi nga xamante ne moom mooy la quatorzième législature euh, ki am la majorité mooy l'ancien régime ñoom ñoo am la majorité parce que am nañ jusqu'à une quatre-vingtaine de députés donc il garde toujours la majorité devant les autres groupes parlementaires euh, Liberté Démocratie et Changement mais devant également le groupe parlementaire Yewwi Askan bi nga xamante ne par la suite dafa mujj fragmenté wu gannaaw bi nga xamante ne euh, la plateforme Taxawu Sénégal bi nekkoon ci groupe parlementaire boobu génn na ci daal di fare ci euh, groupe non inscrit yi moom Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly jàpp na rek dañu war a dissoudre lii di assemblée nationale parce que assemblée bi nu muy doxee Euh, daanaka méngoowul lool ak li nga xamante ne ak choix bi nga xamante ne peuple bi def na ko au di du du 24 mars 2024 choix bu nga xamante ne moom moo consacré sax nag l' élection de Bassirou Diomaye Faye donc à la tête donc de ce pays donc euh, mu mel ni c' est vrai que ñu ngi ci session extraordinaire mais blocage xaw na am ci assemblée nationale parce que ku ne xam na ni un premier ministre su fekkee nommé nañ la trois mois euh, ngay am. en tout cas pour euh, ñëw solon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale bi nga xam ne modifié nañ ko pour ñëw fii ci pencum ndaw réew mi def sa déclaration de politique générale constitution bi également wax ci ne képp koo xam ne premier ministre nga ñu nommé la war ngaa mën a dem ci pencum ndaw réew mi jàkkaarloo député décline les grandes orientations les grandes lignes en tout cas de la politique de, du gouvernement loolu nag ba léegi ni jotul am euh, ba ñu ba ko waroon def am na incident ba nga xamante ne amoon na fii ci assemblée nationale Euh, gannaaw bi nga xamante ne le ministre euh, du budget teewoon na fi pour def sa euh, li nga xamante ne défendre le débat d'orientation budgétaire député yi daal di ko annulé jàpp ni kii di premier ministre nu mu àddoo ci mbirum déclaration de politique générale bi daal di def ab poste tontu ki nga xamante ne moom mooy le député Guy Marius Sagna souligne ko ay rëkk-rëkk yoo xamante ne am na ci réglement intérieur bu assemblée nationale jàpp ne rek bu ñu corrigé wul rëkk-rëkk yooyu muy yoo xam ne. mu ngi aaju ci ay dispositions yoo xam ne jëlee woon nañ ko ci réglement intérieur bu assemblée nationale gannaaw bi nga xamante ne en 2019 l' ancien président de la république Macky Sall euh, supprimé woon na le poste de du premier ministre Ousmane Sonko jàpp ne disposition yooyu fekk delloosi wuñ ko ci règlement intérieur bu assemblée nationale du ñëw taxaw ci assemblée boo xamante ne reconnaître ko te sax nag le 15 juillet fekk le 15 juillet 15 juillet c' est vrai que passé na bu député jëlul seen. matukaay daal di corriger rëkk-rëkk bi am ci règlement intérieur bu assemblée nationale dana dem devant un jury populaire daal di fa def sa déclaration de politique générale loolu nag nekkoon loo xamante ne metti woon na ñi fare ci majorité parlementaire bi benn Bokk Yaakaar ñi nga xamante ne jamono jooju daan nañ gisee di waxtaan seen biir ñenn ñi sax di menacer le premier ministre pour euh, pour euh, soumettre Euh, pour dugal li nga xamante ne moom mooy une motion de censure boobu ba léegi nag le premier ministre Ousmane Sonko ñëwagul ci assemblée nationale pour euh, daal di euh, présenter sa déclaration de politique générale ki nga xamante ne également mooy le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñu ngi wax ne bokk na ci ay mébétam mu daal di dissoudre l' assemblée nationale mais mën na ko ko def parce que assemblée nationale li constitution bi wax. mënagoo ko mënoo ko dissoudre tant que amul deux ans loolu article 87 de la constitution euh, moom moo ciy wax prérogative bu président de la république la mu dissoudre assemblée nationale saa yu ko bëggee mais dafay fekk rek assemblée boobu am deux ans l'assemblée bi euh, le 12 septembre lay am deux ans mu mel ni nag euh, à partir du 12 septembre jëm kaw su fekkee le président de la république Bassirou Diomaye Faye bëgg naa dissoudre li nga xamante ne moom mooy la quatorzième législature euh, mën na ko mën na ko mën na ko def mën na ko dissoudre jël un décret de dissolution boo xam ne dafay daal di aviser le premier ministre Ousmane Sonko daal di aviser également le président de l'Assemblée nationale te jamono ji muy Amadou Mame Diop daal di jël un décret dissoudre Assemblée nationale mais ba tey li euh, loi constitutionnelle bi wax bu président de la République di jël un décret pour dissoudre Assemblée nationale dafay daal di préciser waale la date de la tenue euh, des prochains du prochain scrutin te loolu mënul weesu euh, le délai de deux mois au minimum et trois mois au maximum loolu la constitution bi wax mu mel ni nag à partir de ce moment là euh, jafe-jafe mën na am parce que su fekkee constitution dafa wax ne pour président organiser élection da koy def dans un délai de trois mois au minimum deux mois au minimum trois mois au maximum te de l'autre côté on voit que élection Sénégal jamono jii nii pour nga dem ci également il faut que nga daal di def li nga xamante ne moom mooy la collecte de parrainage mu di loi boo xam ne également ñu ngi ko voté en 2019 à un an euh, de l'élection présidentielle euh, qui soumettront le projet de loi boobu mooy l'ancien président de la République Macky Sall ñu voté woon ko fii ci Assemblée nationale sans débat boobu tamit code électoral bi indi na délai de collecte de parrainage bi moo di délai boo xam ne mu ngi varier entre quatre-vingt-dix jours à cent cinquante jours mu mel ni nag euh, délai de collecte de parrainage bi euh, temps bi ñu ci joxe dafay ëpp lool temps bi nga xamante ne moom lañ may le président de la république pour mu fixer la date des élections parce que deux mois pour fixer la date des élections trois mois au maximum et la date ou bien le délai de collecte des parrainages qui varie entre trois mois à cent cinquante jours loolu donc dafay dépasser largement euh, fourchette de temps bi nga xam ne moom lañ may le président de la république pour mu organiser mu mel ni foofu vide juridique dafa am euh, cas la boo xamante ne euh, prévoir uñ ko woon jamono jee passé ñu ngi doon dégg ne le président de la république Bassirou Diomaye Faye saisir na le conseil constitutionnel naam nag les motifs de la saisine teguñu ko sur la place publique ñu bëri xamuñu lan moo tax. Euh, kii di euh, président de la république euh, daa di saisir le conseil constitutionnel ñu bëri jàppoon nañu sax xëy na daf ko saisir justement pour mun a pour le conseil constitutionnel qui rend un moom tamit mu mun a addu ci datu solution bi gisoon nañ ko ci mel ni Aminata Touré doon wax ne avant le 31 juillet dañu war a dissoudre li nga xamante ne moom mooy assemblée nationale loolu mu mel ni léegi mu ngi suñu ginnaaw on n'est plus au mois de juillet on est en fin août. donc euh, mu mel ni euh, euh, maanaam objet saisinu conseil constitutionnel boobu nga xamante ne le président de la République Bassirou Diomaye def na ko c'est pour que le conseil constitutionnel mun a àddu ci li nga xamante ne moom mooy vide juridique boobu nar a posé wu su fekkee ne jël na un décret pour dissoudre li nga xamante ne moom mooy assemblée nationale léegi nag li conseil constitutionnel mën a def foofu mooy peut-être autorisé pour ñu dem ci élection boo xam ne comme ni ko constitution bi waxee ci délai wu deux mois au minimum wala trois mois au maximum mais ñu dem ci sans ñu jaar ci li nga xamante ne moom mooy euh, l' di euh, du te mu nekk étape euh, bu am solo étape boo xam ne sénégalais commencé nañ ko mise commencé nañ ci habitué wu depuis 2019 loolu nag bokk na ci li nga xamante ne conseil constitutionnel mën na ko def autorisé pour ñu def élection compte tenu donc des délais très serrés Euh, parrainage su fekkee nag loolu nañ ko def euh, njort naa ne pëccëkoo bi na xaw a lool parce que bu ñu fàttaliku en 2019 li taxoon ñu indi le parrainage pour euh, mën a wàññi les candidatures fantaisistes conseil constitutionnel bu ko naree def également day sukkandiku ci une situation d' exception pour ne léegi nañ dem ci élection sans parrainage mais est ce que situation d'exception aussi am na comme li nga xamante ne moom moo amoon ci élection présidentielle bu 24 mars 2024 ba tax ñu daal di wàññi li nga xamante ne moom mooy le délai de collecte des parrainages bi waroon nekk 21 jours ñu indi ko à entre 12 à 15 jours foofu ku ne xam ne ne situation d'exception amoon na fa parce que commencé woon nañ xalaat ci li nga xam ne moom mooy le report de la présidentielle am ay recours yu bëri am ay euh, Euh, suspicion am ay incertitudes yu bëri ci li nga xamante ne moom la rapportu euh, élection présidentielle boobu mënoon jural réew bi ba tax na conseil constitutionnel jël une décision sage comme ni ñu koy waxee euh, daal di réduire les délais de collecte des parrainages jëlee ko 21 indi ko 12 jours ñëpp accepté ko que ça soit ñi fare woon ci kujje gi que ça soit également ñi fare woon ci ci nguur gi ñu dem ci élection boo xamante ne élection. Euh, bu mucc ayib la élection bu bëriwul contestation pour la première fois dans l'histoire de ce pays la un parti de l'opposition en tout cas ñëw en tout cas gagné donc nag euh, coalition la ñu demee Pastef ak ñi mu àndal ci coalition ñëw gagné élection présidentielle au premier tour avec un score historique de euh, pour cent donc comme ni ñu koy waxee jamono ji mën nañ jàpp ne situation d'exception amul bu war a mën a tax le conseil constitutionnel autorisé pour ñu dem ci élection législative yoo xam ne euh, du am parrainage loolu nag xëy na amu ngi sunu kanam ba léegi xamaguñu exactement l'objet de la saisine li tax de président de la république Bassirou Diomaye Faye euh, daal di saisir euh, li nga xamante ne moom mooy mooy le conseil constitutionnel mesdames et messieurs donc euh, loolu mooy actualité bi nga xamante ni jamono ji moom mooy euh, tourner autour donc de la quatorzième législature tey di ñoom ñoo xewle les député ñoom ñoo xewle tey jii nii la quatorzième législature avec une majorité boo xamante ne mu ngi féete ci opposition bi jamono jii nii ne ci fàttali majorité boobu mu ngi tàmbalee ci ancien régime bi fi nekkoon mooy euh, l'APR et Benno Bokk Yaakaar la coalition ñoom ñi amoon jusqu'à 80 82 et 83 députés bu ñu demee ci élection ñu gagné leen ñu maintenir seen seen majorité et ci diggante bi également ñu gis ne deuxième groupe parlementaire bi nga xamante ne moom moo doon poser de tout son poids ici à l'Assemblée nationale mooy le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi dafa daal di fragmenté wu gannaaw bi nga xamante ne euh, la plateforme taxawu Sénégal te ki ko jiite di Khalifa Ababacar Sall mais ñi ko toogal fii ci pencum ndaw réew mi bokk na ci Aba Mbaye Aba Mbaye gis nañ ko noonu ñoom ñoo ko fi teewal gannaaw bi nga xamante ne ñoom tamit euh, génn nañ ci groupe parlementaire boobu daal di béru bu ñu génnee ci groupe parlementaire wax nañ ko sànq mënuñu génne ci groupe parlementaire dem dugg ci beneen groupe parlementaire. loolu règlement intérieur bu assemblée nationale nanguwu ko mais dañuy daal di dem gonfler euh, le potilo du groupe des non alliés jamono ji taxaw Sénégal ci non alliés yi lañu lañu la ñu fare donc euh, mesdames et messieurs loolu moo fi nar a xew tey jii nii ñu fàttaliwaat ko prétexte session extraordinaire bi session extraordinaire bu ñu ko waxee mooy session ordinaire session unique ordinaire yi jeex na depuis mois de juin ci la assemblée di tëj bu assemblée tëjee nag kenn waxul ne député dootuñu tase euh, bu ñu gisee loo xamante ne jar na ñu tasewaat fi mais dans ce cas dafay doon dans le cadre d'une session extraordinaire et en procédure d'urgence procédure d'urgence nag comme ni ñu ko waxee 15 jours lay durer mais li ci ëpp dañuy gis ne sax ci 15 jours yooyu daanaka bu ñu ñëwee premier jour bi rek dañuy daal di vider moom moo ñu fi indi que ça soit un projet de loi ko waxee mooy euh, Euh, texte boo xamante ne président de la république moom moo ko soumettre député pour ñu examiner ko bu dee nag proposition de loi dafay jóge ci député wala groupe de député ñoo xamante ne bëgg nañ euh, changer mbir wala ñu modifier mbir wala ñu bëgg nag indi lu bees ñu daal di ko soumettre le bureau de l' assemblée nationale bureau assemblée nationale bi daal di ji réunir jël texte bi jébbal ko le président de la république pour avis président am huit jours pour xool ko daal di joxe avis ñu daal di euh, convoquer Euh, li nga xamante ne moom mooy les séances plénières pour waxtaanee ko fii ci assemblée nationale. te yi nag ci session extraordinaire lañ ne gannaaw bi nga xamante ne le président de la république euh, gis na ne war na soumettre un pro un projet de loi aux députés de la quatorzième législative donte nag amul majorité fii nii loolu sax nag moo gën a waral coow li jamono jii li ñëpp di euh, bàyyi xel mooy lan moo war a doon. Euh, position wu député yi fare ci majorité bi Benno Bokk Yaakaar par ricochet ñi nga xamante ne daanaka ñoom ñoo ëpp ay nit euh, fa nga xamante ne moom mooy euh, le conseil économie sociale et environnementale mais ëpp également ay nit fa nga xamante ne moom mooy le haut conseil des collectivités territoriales donc l'un dans l'autre li ñu mën a constater mooy ñi am majorité à l'Assemblée nationale Benno Bokk Yaakaar ñoo ñu am majorité également ci kuréel yooyu est-ce que député yi fare ci majorité fii ci assemblée nationale Benno Bokk Yaakaar nañ jël décision pour euh, daal di euh, liquider daal di sacrifier euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy seen camarade ya fare ca HCCT seen camarade ya fare ca 16 conseil économique social et environnemental yóbbu leen au chômage est-ce que décision la boo xamante ne dinañ ko jël def ko fii ci assemblée nationale est-ce que dinañ voter en tout pour autrement dit est-ce que dinañ voter contre loolu nag ci kanam lay leer mais ce qui est sûr et certain député yi fare en tout cas pour l'essentiel euh, ci kuje gi euh, bu ñu ne ci kuje gi li ñuy njëkk xalaat mooy député yi fare ci euh, groupe parlementaire boobu di yeewi askan bi ñoom dañuy daal di voter pour ñu daal di supprimer jëlee fi li nga xamante ne moom mooy la HCCT au conseil des collectivités territoriales jëlee fi également li nga xamante ne moom mooy le conseil économique sociale et environnementale bu ko defee nag dinañ daal di yaxanal comme ni ko bëggee lu tollu ci 15 euh, milliards ci at bi ci cinq ans yi dañuy daal di yaxanal rationaliser ay dépenses lu toll ci 77 milliards donc loolu la ñu la rationalise rationalisation euh, des dépenses publiques loolu nag di lu am solo président de la république nag Bassirou Diomaye Faye ba mu toogee ci bopp réew mi ba léegi. ku ne gis na ni bokk na ci mbébétam bokk na ci dynamique bi nga xamante ne fa la teg tànkam mooy rationaliser jéem a teg ay tànkam ci ñoom slogan bi ñu tuddee lu jub jubal jubante ba tax yenn décret yi nga xamante ne l'ancien président de la république Macky Sall jëloon na ko ñeel ay nomination ci yenn kuréel ba ci premier magistrat de la cour suprême yooyu yëpp daal dina koy kase euh, euh, kuréel googu nga xamante ne. Euh, waa euh, Sambou également jiite woon na ko euh, daal dina koy également dissoudre tey jii mu ngi tànk mu ngi taxaw ci tànk également dissoudre la au conseil des collectivités territoriales dissoudre également li nga xamante ne moom mooy le conseil économique social et environnemental ñu bëri également jàpp nañ ne taxaw na ci tànk également dissoudre li nga xamante moom mooy le assemblée nationale donc mu mel ni ci jamono dissoudre lañ daal lañ tolloogu bu ñu dissoudre rek li nga xamante ne moom mooy l'Assemblée nationale dinañ demaat ci yeneen élection yoo xamante ne dinañ ci am beneen lecture xëy na bu xaw a wuuteeg élection ñu jógoon mooy élection présidentielle bu 2024 ba nga xamante ne ça a été donc une élection historique comme nañ ko waxee sànq pour la première fois un parti de l'opposition wala une entité de l'opposition dem élection gagné au premier tour ak score buy tourné autour de 54 pour cent mais question bi ñëpp di wu jamono jii jamono jii nii may Euh, bu ñu demee ci élection législative su fekkee dissoudre nañ assemblée nationale le 14 septembre il va sans dire que 14 octobre 14 euh, novembre war nañ dem ci élection au minimum wala 14 décembre dans les trois mois war nañ demaat également euh, ci nga li nga xamante ne moom mooy les élections législatives mais est-ce que est-ce que est-ce que euh, le pouvoir actuel dina mën a maintenir ak yi nga xamante ne <clears throat> amoon na ko ci élection présidentielle est que dina mën a score ba fa amoon dina mën a refléter wu ci élection législative bii di ñëw moom la ñu bëri jamono jii nii di moom mooy question bi nga xam ne jamono jii moom la ñu bëri di wu mais loolu nag élection législative moom moo ko mën a moom moo ko mën a leeral parce que ku ne xam na ne cinq mois la ñu amagum à la tête donc de ce pays là président de la république Bassirou Diomaye Faye son premier naam jël nañ ay décisions yoo xam ne ñu bëri ñu ngi koy saluer ñeel mbirum arrêt des constructions sur le littoral lu jëm également ci wàññi li nga xamante ne moom mooy euh, le coût des denrées de première euh, de première nécessité lu ci mel ni ceeb lu ci mel ni diwlin lu ci mel ni suukar en tout cas les denrées de grande consommation lañ ko duppee ñoom lu dem ci wàññi prix yooyu bokk na ci décision yi ñu njëkk jël abrogé yenn décret yoo xamante Euh, président l'ancien président de la République Bassirou Diomaye Faye euh, l'ancien président de la République autant pour ma euh, Macky Sall jotoon na ko jël jël également ay décisions en li yenn collectivités territoriales yi pour mën a déguerpir yenn espace yi jotoon na nag jur ay frustration loolu yëpp bokk na ci décision yi nga xam ne jël nañ ko lu ci lu jëm également ci intrants agricoles yi enveloppe bi nga xamante ne alloué nañ ko ko Euh, li nga xamante moom mooy décision yu jëm impliquer les forces de l'ordre dans la répartition également donc des intrants agricoles yooyu yëpp bokk na ci décision yoo xamante ne euh, jotoon nañ ko jël acte yoo xam ne jotoon nañ ko posé ñu bëri daal di koy euh, saluer mais de l'autre côté il su ko ce qu'on appelle de la médaille la face le peut-être bi nga xamante ne moom moo mën a inquiéter un peu mooy li nga xamante ne am na ca ONAS ñu bëri jàpp ne scandale la ba tax tey nii Euh, que ñu fa nommé woon euh, nekk directeur général de l' office national de l' assainissement du Sénégal Cheikh Dieng daal di euh, ñu daal di koy jëlee ca poste boobu indi kenn ku tudd Séni Dieng jamono ji Séni moo ko wóotu après quelques mois seulement à la tête de l' office national du Sénégal ñu bëri jàpp ne am na fa kii di Thierno Alassane Sall daal di ci addu daal di ci moom tamit a porté plainte pour ñu mën a leeral mbir moomu. gis nañ également le président de la commission des lois ki nga xamante ne moom mooy euh, musa Diakhaté moom tamit daal di bind texte daal di ne il faut mu taxawal fii ci assemblée nationale euh, commission d' enquête parlementaire ki mën a leeral mbir moom loolu bokk na xëy na ci li mën a inquiété ñenn ñi ci li nga xamante ne jot na xew ci cinq mois yi nga xamante ne euh, Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre jiite nañ ko réew mi bokk na également ci leneen loo xam ne mën na inquiété xëy na mooy euh, émigration irrégulière bi nga xamante ne ba nigga ni euh, ñu bëri jàpp nañ ne bokkagul ci priorité euh, gouvernement bu yees bi bu fi nekk wala bokk bu bokkee ci priorité ba léegi tegaguñ ay solution yoo xamante ne c'est des solutions viables yu mën a tax ñu dakkal phénomène boobu di émigration irrégulière bi la question des inondations également gis nañ li xewoon Kaolack li xew Touba donte nag jot nañ ci jot nañ ci def liñ ci mën donte nag euh, yàggu ñoo egsi à la tête donc de ce pays là loolu nag les marchands ambulants également gis nañ frustration bi nga xamante ne jotoon nañ ko am ñoom tamit boo demee ca port autonome bu ñenn ñi également mu ne apprécier rafetlu li nga xamante ne moom la directeur général ba daal di def pour mën a assainir ca LONASE également gis nañ li fa jot a xew la LONASE j'allais dire également le monde de la presse gis nañ également frustration bi nga xam ne ñenn ñi dund nañ ko ci ci li ñu jàppee la pression fiscale et lu mel loolu yëpp nag en laps de temps en cinq mois la jot a xew mën na am répercussion ci élection législative yi ñu dégmal peut-être ce sera au mois de décembre au mois de janvier qui sait loolu yëpp donc lu mën a lu mën a lu mën a déteindre la ci élection euh, législative yi di ñëw donc l'un dans l'autre bu ñu demee ci élection législative euh, la coalition Diomaye président daal di maintenir li nga xamante ne moom mooy score bi mu amoon ci élection présidentielle wala tout simplement la amoon ci élection présidentielle bi daal di reflété wu fii ci assemblée nationale on peut dire tout simplement que la coalition Diomaye président mën na am une majorité confortable fii ci assemblée euh, nationale mais ku ne xam ne nag ba élection législative jub see y a ce qu'on appelle le li ki démb rek ñu ngi doon xalaat euh, euh, il pré euh, il supposé ou bien tout simplement on supposé rapprochement entre la coalition Benno Bokk Yaakaar ak la plateforme taxaw Sénégal ba tax ñenn ci ay cadres ñoo xam ne ñu ngi fare woon ci taxaw Sénégal une vingtaine de cadres daal di démissionné génn donc ca ca kuréel googu di taxaw Sénégal donte nag par la suite démb ci guddi gis nañ CAPS taxawu Sénégal précision communiqué bi nga xamante ne def na ko ci. démission yooyu am daal di saluer respecter li nga xamante ne sax laay wax décision li nga xamante ne seen i anciens seen i désormais anciens camarades yooyu jël nañ ko pour mën a génn ca plateforme taxawu Sénégal mais daal di indi démenti également comme quoi que rapprochement amagul jamono jii nii euh, ci ñaari kuréel yooyu muy Benno euh, Benno Bokk Yaakaar ak taxawu Sénégal mais ci suñu jàngat lu mën a nekk la. parce que ku ne xam na ni jamono ji pour nga ñëw assemblée nationale am fi euh, majorité bu confortable wala sax nga liggéey ba am un groupe parlementaire il foog nga jaaree ko ci li nga xamante ne euh, moom mooy euh, il faut nga jaaree ko ci li nga xamante ne moom mooy le jeu des alliances loolu nag nekk lu lu am solo jamono jii ñuy wax ak yéen gis nañ ne li ci ëpp ci ay député en tout cas tey jii mu mel nii donc euh, comme comme comme ñu ko waxee sànq comme ko waxee sànq jamono jii dafa mel ni dafa mel ni euh, opposition bi sentir nañ ne ñoom ñoo xewle l' opposition parlementaire j'allais dire l' opposition parlementaire dafa mel ni sentir nañ ne jamono jii ñoom ñoo ñoom ñoo xewle parce que euh, c' est l'une des fois ñuy gis dara war a xew assemblée moo xe moo xam ñu war a taxawal. un groupe euh, ñu war a ñu war a ñu war a ñu war a examiner une proposition de loi wala ñu war a examiner en tout cas une proposition de loi wala un projet de loi euh, l'un dans l'autre li ñuy faral di gis mooy à chaque fois ñu njëkk a teew fii ci assemblée nationale euh, mooy les députés yi nga xamante ne ñoom ñoo fare ci la majorité parlementaire tey jii nag ñi njëkk ñi njëkk a def teew daal di commencer embellir la décor mooy député yi nga xamante ñoom ñoo fari ci kuje gi ku ci mel ni Guy Marius Sagna gis nañ ko ku ci mel ni euh, l'honorable député euh, Amadou Ba gis nañ ko fi ku ci mel ni l'honorable député Daba Wañaan voilà moom la ñuy gis noonu à côté de Guy Marius Sagna voilà donc euh, Sanu Dione voilà donc Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly voilà donc ñoom ñëpp daanaka teew nañ Mansour Kébé voilà donc décor bi commencé na changer donc euh, voilà donc Mamadou Niang voilà qui est député également du PUR voilà ñoo ñëpp euh, dem nañ Idrissa Diallo voilà donc décor bi commencé na l'honorable député Awa Diène y a l'honorable député également euh, l'honorable député euh, Ahmed dara wala donc ñoom ñëpp dañoo teel a excité mu mel ni donc. accordé nañ importance li nga xamante ne moom mooy proposition bi de loi bi jógee di tukkee ci président de la république Bassirou Diomaye Faye mais du côté quand même de la majorité parlementaire député yi nga xam ne ñoom ñoo fare ci majorité bi ñu ci jot a teew jamono jii nii bëreegul gisaguñu sax le président du groupe parlementaire li euh, nga xamante ne moom mooy Abdou mboow ñëwagul jamono ji je pense que euh, ñi gën a ràññeeku ci côté boobu on voit des gens comme euh, Moussa Diakhaté bi nga xamante ne moom mooy le président la commission des lois Euh, feggoog noonu ki nga xamante ne moom mooy euh, Ali Mané l'honorable député du côté du gouvernement également ñi leen fi war a teewal euh, gisaguñ ci kenn dix heures lañ joxe woon rendez-vous 10 heures 35 minutes ba léegi décor bi des na on voit également l'honorable député Malick Diop mu ngi noonu donc voilà donc dina doon débat yu am solo tey débat yu am solo lañu ñu nar a dund fii nii tey. jërë ngeen jëf mbokk yi bàyyi xel ñu leen di nuyuwaat ci fi nga xamante moom mooy ci en direct bu assemblée nationale comme ni nga ko xamee tey ci li nga xamante ni moom mooy euh, séance xamante ni bientôt mu tàmbali ci li nga xamante ni moom mooy euh, la distribution de ñaari ñaari institution yooyu nga xamante ni procurateur ñoom gouvernement bu yees bi dañu waxoon ni kat dañ koy euh, supprimer ndax kat dañ jàpp ni. yàqukaayu koppar la ci li nga xam moom moo ci gafak gafak gafak gafak réew bi mu doon loo xamante ni yaakaar naa ni euh, dinañ ci xam dara ndax député yi daan ko ndax député yi daan ko daan ko euh, accepté xam moom mooy la dissolution de l'Assemblée nationale mu doon loo xamante ni sa fait débat depuis un bon tey nag ci li nga xamante ni moom mooy ci fii ci assemblée nationale ñu xaayandi yenn ci député yi nga xamante ni incha allahu euh, def nañu ñëw léegi daal di tàmbalee liggéey bi nga xamante ni dinaa ba ñu <laughs> ginnaaw ba ñu gisee ki nga xamante ni moom mooy Bassirou Diomaye Bassirou Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal di sàkkoo ñi nga li nga xamante ne moom mooy ci bureau assemblée nationale bi li nga xamante ne moom mooy assemblée nationale bi nga xamante ne yaakaar naa ni euh, dañuy sàkku ci député yi ñu voté li nga xamante ni moom mooy euh, loi bi nga xamante ni euh, moom moo jëm ci li nga xamante ni moom mooy tas institution yooyu nga xamante ni yaakaar naa ni moom mooy HTC e ak li nga xamante ni moom mooy CSE ci li nga xamante mooy conseil économique et social débat bi bëri na boobu léegi ñu ngi koy waxtaanee di ko càmbar saa su ne ñu ngi xaar rek ndax député yi naam dañuy dëggal loolu nga xamante ni loolu la euh, assemblée bi daal di réew mi président Bassirou Diomaye Diakhar ak ñi nga xamante ne moom mooy assemblée bi ci li nga xamante ni mooy sàkku teef boobu nga xamante ni président Bassirou Diomaye Faye waxoon na ko ci jamono yi nga xamante ni mu nekkoon ci euh, di wuti réew mi nekkoon ci campagne électorale ku nga xam ne ni ñoom ñi nga xamante moom mooy ce euh, nouveau régime dañu sàkk woon ci li nga xamante ni moom mooy euh, maanaam euh, bu ñu toogee ci bopp nguur daañu jéem a soppi li nga xamante ni moom mooy yooyu di institution yooyu nga xamante ni dañu doon jàpp ne bu ñu ko tasee dina nekk 15 milliards yoo xamante day ñor ci gafa gafa ci ci gafa gafa réew mi actuellement ku nga xam ne ni réew mi actuellement dañoo soxla yenn fonds yoo xamante ni pour pour tabax hôpitaux wala ba dafa yenn li nga xamante mooy wàllum infrastructure la du ñàkk xëy na plus kanamee daañu ci xam ndax am député dañu nangu li nga xamante ni moom mooy euh, tas li nga xamante ni euh, moom mooy conseil économique social ak li nga xamante ni moom euh, ngi xaar nag ci kanam léegi-léegi du ñàkk bu tàmbali bi ñu xam li nga xamante ni yenn ay réaction ak yenn naka waa groupe parlementaire bi benn bokk yaakaar moom dafa mel ni que d'accord benn yoon ci nga xamante ni moom la ngi daal bëgg a sàkku ci li nga xamante ne moom mooy euh, député yi euh, pour mu daal di tas li nga xamante ne moom mooy euh, yooyu de institution ñi ngi xaar nag waa Benno Bokk Yaakaar seen taxawaay tey nan la fan la nar a ak nan la ko na a taxawee si li nga xamante ne moom mooy yooyu